شهر وفي سفر أماني على ماني sant nag cant goo xam ne gu rëy rëy rëy la ndax taxawaay bi moom jërul baax ñëpp xam nañ ko taxawaay bi mat na sëkk rafet na lool eh, dara desu ci waa ñaan yàlla bàyyi la fi rek ba nga àggal sab liggéey eh, sa njaboot gaa ngi nii njabootu njabootu sëñ bi ñu ngi nii teew ci sa wet ñuy gën a sant suñ boroom mi boole booleeg sëriñ bi di gën a sant sëriñ bi mi nu mi leen fàggul seen melo yi fa tabaarakallaahu xam nañ seen bopp sëriñ bi mooy seen moom moom rek la dund boole wuñ koog dara ak gutteefu sëriñ bi itam feeñ na ci ñoom ci biir ak ci bitti ndax lu lu yàqu addunaa ko yàq sëriñ bi fàggul na leen ba génn ne adduna ci ñoom dafa fekk na rek xam nañ seen cër xam nañ sëriñ bi moom lañuy dund xam nañ seen bopp fañ war a yem rek lañu ñuy yem noo ngi gën a yeesa suñu jaayante parce que ni ànd ak yow ci sunu biir ak sunu bitti eh, sëriñ bi sunu cant ak yow mënu su ko wax ci làmmiñ ndax ba nga defee lépp la war a def da nga wëlbatiku jàkkaarloog noonu dimbali nu ci sunu ngor dimbali ci sunu pësteef dimbali na ci sunu jom dimbali ci sunu diine yooyu yëpp matale ko sunu diggante sa sa diggante sa diggante ak ñoom kon cant gi du luñ mën a wax ci làmmiñ dañ koy seeral Sëriñ Tuubaa mi mi nga fi nekkal rek di ko liggéeyal jërëjëf Mbàkke noo ngi sant bu baax a baax la ca des bi mooy nag euh, gàtt xat na waaye ci gën a am solo il faut ñu wax ak sama moo wax sama bokki taalibe góor euh, góorgóorlu bu baax euh, sant rek ci leen war a sax waaye lanu ko war a booleel nag moo di mën a sant mën nu ko mën a mën a sant sëriñ bi buñ ko mënul it nu nekk ca suñu kem kàttan lan koy mën a sant nag moo di sëñ bi boolewul ak dara boroomam biñ ko noppee biñ ko gisee biñ ko noppee gis ci boroom rek la nekk te loolu dara loolu boroomam kon dëgg la suñu xel daal na ndax fàggul nañu lépp waaye amee nañ ko cant gu rëy nañ koy sant nag muy nekkal ko ci li mu li li li li mu bëggoon bëggal nu ko muy sax ci jaamu yàlla rek sax dàkk ci lëggéeyal ko na mu doon lëggéeyal yonent bi lu nu ko tële tële tële nañ ko nañ ci am yéen te am ci pasteef te ci ko sax yéene sax ci lëggéeyal ko te yàlla tax nanu góorgóorlu bu baax ci sunu diine góorgóorlu bu baax ci sunu taalibe ndax nu ko tëlee tëlee sant itam bu nu góorgóorlu ci loolu sax ko ci sax sax ci fas yéene koo euh, sant mun nu ko sant sax waaye nu lu bu baax li mu bëggoon nekk ca boole ko dara bëggal nu ko nan ca nekk ca loola bañ ko boole dara mooy jaamu yàlla ak liggéeyal ko ni mu doon liggéeyal yonent bi loolu ah loolu rek lañ ko mën a sante loolu lépp la muy indi rek mooy la la la koy mat mat mat lépp nag nu sagalal ko lislaam nu sagalal ko lislaam kenn ku ne na am jomi fu mu teew na fa mat ab royukaay ci lislaam nun bokki taalibe yëpp nanu góorgóorlu ci fas fas yéene mën a sant sëriñ bi nan góorgóorlu ci lim mu bëggoon fonkal ko waxtu yu juróom góor gën a góorgóorlu ci infaq ndax léppam da koo jaamoo boromam liggéey la ko yonent bi kon nan ko nekkal ci lim mu bëggoon rek nan ko fonkal sunu diine te nekkal ko ci suñu kem kàttan buñ dëggoo ci loolu te sax ci mën nu ko sant sax waaye loolu rek lan ko mën a wane suñu suñu jant sax dàkk nag ci sagalal ko lislaam liggéey baa ngi fi kenn ku ne ci ñun ñun dañoo baaxoo joxe suñu bopp ñu ne danoo jaa baaxoo joxe suñu bopp nag nan tàmbalee ci suñu bopp nan góorgóorlu ci suñu bopp jiim jiim a defar suñu bopp joxe gën joxe gën a gën a mat gën a rafet ko joxe da ngay joxe lu baax te dama joxe suñu bopp nu góorgóorlu bu baax sëriñ bi moom faggul nañu lépp waaye cant googu nu ko amee nag nan ko nan nan nan nan gën a feeñ gën a sax ci ci ci sax dakk ci jaamu yàlla liggéeyal ko sagalal ko lislaam ci wàll yépp nag yaatu na lool infaq nag lu lu am solo ci lislaam la sang bu baax ba lu gën yépp liggéey bu réem ba yëpp waaye ku miin ay ndigalam da nga xam ne infaq mooy dundule la la yàlla wërsëlëge nga góorgóorlu bu baax gën ko gën a delloo sa sa borom gën koo delloo sa lépp ca wootu yu jëkk ya am na lu xewoon mu woo yu baax yooyee ñu mu àndaloon kenn ku ne war def kam kàttanam ca loolee mu doon woote muy liggéey bu rëy euh, sidna Aboubacar yàlla def na moo jiitu lépp dafa joxe lé alalam lam am lépp yonent bi ne ko looy dese mu ne ko yàlla ak yonent bi lay dese sidna Omar joxe genn wàll àllam sidna Ousmane waajal ab xare ñoo ko tàmbali waaye ñu ci ñëpp itam kenn ku ci ne da nga daa mën lépp da ko daa def te sëriñ bi mi ku baax kookee rek la xooloon gannaaw boroomam ba mu ko joxee borom ba mu ko joxee ba mu ko joxeñee moom rekk la xool lam daa lam daa defee lam daa santaane ca nekkoon noonee gaay yu gaay gaay yu baax ya noonee ñu doon def ànd ko ku baax ka ñi jëkk ànd ak moom ñëpp noonu lañ def ànd ko moom sëriñ bi rekk lañ bëggoon te yàlla tax yàlla teral na jox leen wërsëg waaye soxla wuñ ca dara lépp dañ ko daan jox sëñ bi sëñ bi dal la ko ci boroom nanu xool suñu bopp bu nu jombale suñu bopp lool dara gars yu baax yi lañ daan lañ nekkoon bu ko jombale suñu bopp ñii sëriñ bi ñii jëkk ànd ak sëriñ bi lañ nekkoon bu nu ko jombale suñu bopp ndax dara ci baax jombunu ndax sëriñ bi mënu suñu borom boleel kon nu góorgóorlu bu baax sëriñ bi am na lu ko ñor liggéey sëriñ bi rek ko ñor ci lislaam te min ngi ci semu yu rëy bi ci ngeen xoolee gis ko nii semb na ci semb sembu semb semb yu rëy rëy ak la la ci ci sow jant muy semb yu rëy lépp dékku na ko mu woyof ci moom tooy fas yéene la yépp lam ca yéeneem mu jëfe ko na mu gëne sémb yeneen loolu moom mii moom lañ am moom nag moom itam noonu rek la am kon sémbam yu rëy yii li muy rëy rëy sunu bopp yi la tegu nan ko xam bu baax mi ngi maa ngi mi mi mi mi ngi fàttali liggéey bii liggéey bii mu tiim di ay sémb yoo xam ne joxoon na leen digal jëfe ngeen digal la seen seen kem kattan lu ngeen mën def ngeen ko ci waaye nag du loo xam ne aw sas la ab liggéey la boo xam ne ginnaaw dañu ko joxoñ feeg muy noppi suñ lépp dañ ko cee war a def ba muy noppi ba muy ñu dégluwaat leneen kon na ngeen xam ne liggéey bi li ngeen fen di jeexagul sax waaye nag dañ ko bàyyi xel def ci suñu kem kat def ci suñu kem kem kem kattan suñu sas la woo xam ne feeg muy noppi bëru noo taal dara loolu moom dolli woon na ci daara ji eh, sëñ sëriñ bi moo ko fi bàyyi woon bokkoon ci li nga xam ne moom la lisal boroom muy daara joo xam ne eh, mucc gu yoon bi lépp mu nga ci aju yàlla ko aji kon na ngeen nañ bàyyi xel daara ji nañ bàyyi xel daara ji eh, nañu koy defe nag moo di lii mu lii nu tiim lu waay mën day day day da koy génne andi jox ko ko nga xam ne ci liggéey bi nga ko jëmee waaye am na jiitu yooyu yëpp aada yi murit joxe addiya nan bay xel addiya ndax lii mu jëkkoon a wax ci ko baax ak ñam àndaloon ak sëriñ bi bi mu ñëwee ak ñi mu jëkk àndal addiya lañ jiitaloon addiya nag kon mel na dara jiitu ko ci infaq ndax lépp lépp moom la war te lépp am na yéeneem am na pasteefam lépp am na yitteem kon ginnaaw lépp moom la war nañu jiitale addiya lu ca waay mën nga xam ne sëñ Tuubaa teew mu teg ko mu teg ci loxoom nan bàyyi xel loolu bàyyi xel di joxe addiya ku wax su wane itam at mu jot si na koo mën yéen a ngi ci woon sax waaye ngeen xam ne nag loolu mooy dox doxinu yoon wi ngeen gën koo xam léegi semb wi nag moom liggéey bu teew la moom da ciy nekk ginnaaw jox leen jox leen ndigal nanu nanu bàyyi xel suñu digganteeg moom addi ji nga xam ne moom moom mooy moom ci lay liggéeyee bàyyi xel seen bi nga xam ne da ko ànd ak noonu jox nu ci ndigal loolu lépp ku ci ne la nga am néewoo bare mën nga ne lii mën ngaa yóbbu lii sa sa diya mën nga ne lii ci la ci ndigal laa ko def dëgg la ñi ngi ko doon def waaye ngeen gën a xamee na noonu mooy yon wa tey nu def ci suñu jom def ci suñu yitte jiite ci suñu yéene gën cee wéral suñu pësteef sax ce dàkk noonu mu ngi nii leen ko jottali waaye moo joxe ndigal li kon nañ ko dégg nun ñëpp ko déggul na ko na na ko déggul na ko jottali ka ko déggul mu ne mu ne su la toog la xëy neen te loo nekk lu nekk ci yàlla ak nen rekk la loo nekk lu nekk ci yàlla ak nen la dëgg la suñu na toon nanu nu ami bëgg-bëgg ami bañ-bañ waaye lépp nañ jiital suñu borom kenn du am na ci ñi ñëpp sax kenn ku ci ne la la yàlla jox mën nga caa génne loolu desa ca loo mën a faje say ajo ñu dañ koy bàyyi xel lu ñu muy nas boo xam ne mag ñi ñoo ko nasoon ñu jëkk ana sëriñ bi ñoo ko nasoon bàyyi ko fi kon nanu nu xam ne sëriñ bi eh, moo mooy mooy mooy mooy suñu lépp tey ak eh, lim nu fi bàyyil mooy suñu ndono mooy jaamu yàlla liggéeyal liggéeyal ko ni mu doon liggéeyal yonent bi loolu mooy suñu doona buñ ko sàggane waxtu wu ne nañ ko teg ci kanam di ko soññi suñu bopp di ko sonne suñu suñu mbokkum taalibe bi kon ngeen déggee ko noonu lu góorlu bu baax a baax a baax a baax kon bokki taalibe yi ñun ñëpp nañ ko déggee noonu min fay jahannam yàlla suñ boom dafa wax ne yaa ayyuha allazina am ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila wa jaahidu fi sabilihi laallakum tuflihun ulama u tafsir tafsir yi nee nañu baatu wasila ci ay bii nu wax daa matale mboolem xeeti tawasul ak jëf ju baax joo xam ne mën naa tax jaam bi jege boroom am na boroom xam-xam bu màgg bu ñuy wax docteur Jawda nee na baatu wasila bi yàlla jëfandikoo ci ay bi ëmbaale na xeetu jaamu yàlla yépp ak mboolem jëf ju baax lu mel ne siyaare gaa yu baax yi ak tawasul ci ñoom ci seen wàccuwaay ak seen war ma ji leen yàlla may ulaayika lisiin yad'uuna yabtaxuuna ilaa rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu aay bi li muy firi mooy yéefar yi nga xam ne dañoo daa jaamu ab yonente ak malaayika mooy leen ñooñu ngeen di jàmm ñoom dañu wut wasiila ci ñi leen gën a kawe ngir ñu yeggale leen ci yàlla loolu nag su amee kon kon kon lu waral ngeen ngeen ngeen di jàpp yàlla ñu wax ne maanaam loolu ëmbaali na tawasul ci gaa yu baax yi ngir jege yàlla te ku ko fiire noonu mënu ko wutal firnde wala dalil te jamono yonente bi am na firnde ju ne tawasul daan am jëkk jëkk ñu yónni yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bani nadir lu jiitu lislaam suñu daa ñaan seen aajo daanañu tawasul ci jëmmi yonente bi yonente yàlla muhammad waaye bi ko yàlla yónnee ngir mu woote diine lislaam la ñu bàyyi tawasul ci moom ngir rey ak wedd gu ñu ko wedd moom la sunu borom di nettali ci alxuraan di wax ne walamma jaahum kitaabun min indillahi musaddiqun lima mahum wa kaanu min qablu yastaftihuuna ala lisini kafaru falamma jaahum ma arafu kafaru bihi fa laanatullahi ala kafirin na ci nit ñi daa tawasul ci jëmm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma inna nastansiruka bi xaqi nabiyil ummiyi illa nasartana te la ko jëkk sayiduna aadama alayhi salaam tawassul na ci jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayiduna umar ibnul xataab wax na ne aadama ba mu defee bakkaar ci àjjana ba mu bëggee tuub daa wax suñu borom ne ko yaa rabbi asaluka bi xaqi muhammad lima xafarta lii bi suñu borom laajee aadama foo xamee turu muhammad mu ne ko bi nga ma sàkkee bawal ci bawal ci man sa ruux dama téen bi ma téenee laa gis nga bind ci kenoy aras laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ci laa xamee ne muhammad nga gën a bëgg ci mboolem loo sàkk suñu borom waxaat ne waxaat ne ci mbirum tawasul ne ci jëmbi yonente bi ak sàkku ak wàllu ak ak njégal jaar la ko ci moom wala wan nahuma id zalamu anfusahum jaa'u ko fastaxfirullah wastaxfaru lahum rasulu la wajadullaha tawaban rahiman moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne qul qadamahu fawqa kulli raqaba minhu staaru lxurru kulla man xabar Seydina Ousmane ki silma xawoon dikki ci yonent bi ci tawassul la ay bëtam gise allahuma asaluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika nabiyi rahma ya muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fi xaajati haasi fa taqdiha li yonent bi ak awliyaaw yi ak way taxee suñu faatoo seen ruur day am doole malaayika ak seen kattan ak seen xam-xam ak seen man-man ci barsax day gën yaatoo ndax dañuy xam lu ñu xamuloon di dégg lu ñu lu ñu mënuloon di dégg dem na ba man lu ñu mënutoon ci àdduna moo tax suñu borom di wax na inna lahu indana la sulfa wa xusna ba amin fa wa wajadtum ma wax waada rabbukum xaqan ndax fekk ngeen ci seen bàmmeel la leen yàlla diggoon am am am ñu ko laaj ci saxaaba yi ne ko yi mu àndoon ne ko atad'uuna amwaatan ndax da ngay wax ak ñu faatu mu ne leen ma antum bi asmaa minhum walakin walakin la yujiboon mën ne ko ñoo leen dàq dégg waaye yéen mënu leen dégg seen wax boo xoolee Seydina Yaqub bi mu barkeeloo ci mbubum doomu Yuusuf ngir ay ay ay gisam dellu si waat isago bi xam yi si hasa falquhu ala wajhi abiyaati basiran waatuni bi ahlikum ajmain lii nag su ngeen gisee nu di ko leeral jubluwunu ci atte ku amee dëgg ak ku amul dëgg ndax loolu yàlla rek ko jagoo innamal amalu bindiyaati waaye woote ci diine nag su juree werante ak féewaloo ak tuumaalante kéefar wala bokkaale wala ab xeex am na leen lu ca laxasu lu bokkul ak lu bokkul ci diine ji su boobaa nag l'islam day doon l'islam du jaxasoo idéologie islam nag saa su jaxasoo idéologie faw mu jur xeex xeexoo ak boddi konte te loolu dëgganul diggante jullit ak moroomam loolu moo waral bi islam yegsee ci réew mi ànd ak lu bari loo xam ne bokku ca mag ñi dañoo seet la ciy diine kese ak yàlla ñu jël ko delloo la ca la la ca laxasu te bukk ca di digle lu baax ak a tere lu bon noonu lañu fi nekk woon tàggat ci njaboot gi ba seen mission mat ndax ñoom dañoo teel a xam ne benn bër rek la yàlla dagal ci diine ji mooy diggante jullit ak ki wedd yàlla te gëmul ëllëg te bëri boobu yàlla suñu boobu ndaa santaane nu rafetal ko wa jaadilhum billati hiya asan kon nag nanu rafetal bu baax ma jeexale nag ci liggéey bi Serigne Touba doon liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam li mu jaayantoon diggam ak boroom natt yu ko ci natt yu ko ci suñu borom te nga xam ne ci histoire mësi su koo dégg ak may yi mu ko defal nga xam ne mësi su koo dégg dëkkam bii di Touba bi mu fi wàccee dafa jële engagement yu rëy diggam ak boroom mu daj fi ay natt yoo xam ne nit attanu ko wax na lu génn ko daj na ko te am na ci yoo xam ne du ko tudd ndax ay teggeen diggam ak boroom mu taalif mat lawu faw sëy ni wax ci ni mu bëggee tubaa mel ni wax ci itam ni ko sunu borom xamal ni mu nar a mel ëllëg chakartuhu li annahu qad saaxani li watanan bihi nafa ma anqani nasatu tuubal yowma dayfan yaa karim lakka fa akrim ikraman yadum waxaane sunu borom teral na ma ci sama bar bii ak sama dëkk bii karrama nii fii mawdihi wa baladi mukarrimun bil amni safa xaladi akramani rahmanu ikraman kafa kulliyati durra wa faydi wa kafa nawaytu an ubaari an ubaayi al yowma rasul alayhi salli li hab bihi qabool bayaatuhu ala ibadatin laka summa ala summa ala xidmatihi li wajhika mu dellu wax ne yàlla sunu borom jiital na ko ci mboolem ñiy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaddamani llahu ala alxuddaami bil mustafa al muthabit al aqdaami mu xam la itam sunu borom boole na ko ci mboolem ahlu badrin te muy loo xam ne ku ne xam ne lu faat la xaddamani qudum man xajjaa bi bushari xuqiqa rajaa damat niyal amdaahu wa tawxiidu li jundi muhsin man lahu juhudu yàlla sunu borom ba saxaaba yi jaayante joxe seen bakkan moo tax mu wax leen ne fa yaqtuloona wa yuqtuloona ak laqad radiyallahu anil muminina isi waay yoo xam ne taxta sajarte loolu moo waral li mu jaayanteeg boromam te fas ko yéene sottal moo ko yóbbeel li mu daj lépp ci ay fitna te wal fitnatu ashadu min xattali mu bàyyi boppam ak ci noonu fu leen neex jëme ko fa mu wéccee ne cundum te du ko mettitlu du ko jàmbat te kenn wettiluwu ko ca fanweeri at ak ñett ba nii mu ñibbisee tubaa mbooleem lu neex ci bakkan mu jaayante ko du ko jëfandikoo waral ci boppam fanweeri yëf ak ñett yoo xam ne waru ko noonu la ko defee itam ci mbooleem li mu tarif warul na ci loo ne enrut gàllu ko ko lahul tazamtu maa alayya yalzamu wa raadali luzumu maa la yalzamu bokk na ci li ko suñu borom may ba ñu ko yóbbee sànke ko suñu borom defal ko ba mu mel ne fi mu jóge fa man yulqini fi lbahri rawman li gurbati fali min ilahi rawdu fi kulli aylabi li jaad rabbi bin manasili bi taarubi mutayiban lil xalada inni jaaltuha hadaya li shihab radi anhum man xamaani hansaab mboolem kër kër ya suñ borom bind na noonu ya ci àjjana bu ñu jaamoon yàlla suñu borom may ko ko mu joxaat ko addiyee sahabatu rasul walbati ko suñu borom joxaat ko lu ko ëpp mu fàggul ko teel bi boppam ndax nee na xam nañ yàlla suñu borom du jeexal tàkk te noonam yi ñu ko booleel ci li mu jaayante du soñ xam fu ñu ko jëme ak natt yu ñu koy teg te kenn du ko ci dimbale lépp moo koy yanul boppam astaxlisu li nafsi te jëkk muy dem ci géej gi Serigne Saliou Mbacke wax na ne bu mu taalif Matlaboul Fawzayni dafa am gaynde gu doon dàq njaay àll ba agsi ci sëriñ bi njaay àll ga làqatu ci sëriñ bi gaynde ga taxaw lu yàgg dem bàyyi ko te sëriñ bi raf sax defu ko koo xam ne nag rabi àll yàlla ñoo la rus asama doomu adama te rasulullahi ci boppam moo sàkku ci sunu borom ne ko na nekk xaadimu rasul di jëwriñam raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu wa abdullahi moo wax ne sama deret ak samay taalibe ak sama njaboot lépp def naa ko muy ak njotu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada mu dellu wax ne ba rasulullahi sallallahu alayhi dellu si waatoon ab lexam la koy lalal ba gën dégg du ko jam xaddi wi xaayatoon li rijlil mustafa an shawkatin wa xayatin wa aqraba loolu moo waral mu àgg ak sunu borom foo xam ne ñàkk jaamu yàlla ak ñàkk ko li mu jural mbindee fi mooy tabbi safara ak alku naka noonu féewaloo ak Cheikhul Xadim ceeg tayef loolu yi rekk la jur te moo ko bind wax ne siiqal la siina tarakul ibada li naari man man lam yuti ibada li man la ko kulliyati ibada hamdi wa man xaalafa ni abada sunu borom tabbat tàggatal ko xooli mboolem ñi nar a taxe ñu jublu si ko quluub jumlati lasina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslihu doomu aadama ju nekk nag ñaaroo ko seq xelam ak xolom bu ñu baaxee léppam baax moom sëriñ bi mu wax ne lëndëmee xeli ñu ko sopp sunu borom far na ko ba mu set àgg naag borom foo xam ne mboolem lu baax loo xam ne gaa yu baax yi ñu ngay gaawantu di ko wuti loolaa gaaw di wuti sëriñ bi teg ca ne yàlla lu nekk mën na ko ilayya baadara lasi yu baadiru lahul kita lahul kiraam wa ilaahi wax na ne ñi tuddi ay waliyu ak i borom xam-xam la daw di ko wut loolaay daw di la loolaay daw di dugg ci sama biir taalif yi moo xam wesar la wala way la farra li nasmi wali nasri kullu ma farra ilayhi lawliya wal ulama nee na sunu borom moo ko wullil mboolem mbindeef yi ak seen yaram nee na itam moo ko tàggatal ñi ñu tuddi ay boor ak yi ci àdduna yëpp indil ko la fay njariñ alaana lil quluba wal abdaana man xaadali fii baladil daana layyana lil quluba wal abdaana man raada lil ko wal awtaana loolu moo tax bindeef yi ni ñuy wuysee wooteem bii di màggat gi ci sunu jataay bi jëmbal na ko jëmbal na ci firndeel liy firndeel loolu sëriñ bi wax sëriñ Tuubaa waxuñu lu araam mbaa lu ñu sax ay waaye bëgg woon boroom la mu ko jaral ak fa mu ko àgg tax na mu jël lu bari lool ci yi nga xam ne dafa dagan ci doomu aadama mu jaayante ko ak boroom ne dootu ko jëfandikoo faaraxtu jumlatal minal mubaahi liman kafaani zaw yi nubaahi baayaxtu bay alaj ma addami li wacci man ufdi lahu umuri nabastu kax wal wal ali qad qaadali badala wali li wajjuhu ma tasko bihil xidamu nabastu fii deksasin maa laa ubayinuhu kaannahu baadama qad adamu mu dun rasulullahi ci yéeni ñëpp jàmm lam yanhu xalbi maa yaduru muslima mustaxniyan an kulli man la muslima moo tax képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa wóoroo ko fayur wóoroo ko xeexal di sàkkoon mbindeef yëpp yërmaande ci boroom yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara yaa haadiyan rada doonan xar baaxe ci bëgg yonente ba sallallahu alayhi wa sallam wax waxtu wu ne mi ngi julli ci moom ak jébbal ko léppam nee itam bayitu yu bashirukal baax yi bi xatti karamatan wayn kuntun an ardil madinati zaana ay mi ngi ko def ci benn ci dun ci géej gi digganteem ak ndakaaru mi ngi met mi ngi toll ne ndakaaru ak ndar nee na ba moo ca tuddee ardul madinati ci sansa yàlla def ñu di ko jàng ca xabru yonente bi suba ak ngoon li nga xam ne fàggal na ko bépp taalibe bu ko liggéey mooy barke bu ànd xéewal bu tax nga fàtte li nga doon sonn li nga ko doon sonn ci coono boo ma sonn sonn ak lépp loo ma sonn jànkotee ci liggéeyal ko nee na liggéeyal ko mooy taxa am barke ndax neena barke ku ko bëgg da koy jënd li ñu koy jënde mooy dëppook xuruful baraka nee na bàggi mooy lépp luy bàyyi lépp luy caaxaan ci saaxir ak ci baatin yu saahiri mooy di def lépp lu lépp lépp lu amul solo ci say cër yu baatin mooy di xalaat lu baaxul ci sa xol raagi mooy rafoon imati ilal aliyil ala te mooy kaweel sa yitte ci yàlla te bañ a la leneen lu dul moom kaaf gi mooy kasbul xuyóori niyatan wa xawlan wa fi'lan te mooy di fàggu aw yiw di wax di ko jëfe taa gi mooy attawbatu nasu te mooy tugg gu sell ci mboolem ayib yi nga xam ci sababu ak yi nga xamul te yàlla xam ko ci yow mu leer la ne boo jëfoon lu toll ne asamaan ak suuf ci lu baax lu tax nga def ab fukkeel ci li nga war sa digg sa borom wa ma qadarullah xaq qadrihi xee gi mooy al hadiyatu lati tatawalladu minha al hidaaya te mooy hadiya moo lay jural nu jub nu ñëpp moo lay womat xëcc ñu ba dugal ba dugal ñu aljannata lati waydal mu taxunu nee na nag barke deesu ko able deesu ko maye deesu ko saraxe ak njëg rekk ko ko maye moo sëriñ bi wax ne barakatan bi neex bi nay li xayri ni'ma tunsil muridina ana al xidma moo tax boo ko amee dana la fàttali mboolam loo ma sa jëf ci lu baax ak mboolam coono boo ma sa daj bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha naimun muqimun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Mbacke xol yi sedd na guy xel yi dal na nañu tàllal sëriñ bi ñaan jërëjëf Cheikh Mamadou Bachir nañu tàllal sëriñ bi ñaan na ñëpp yegg suuf ñu tàllal sëriñ bi ñaan amin Mbacke amin Mbakke amin Mbakke bu ñu paree ñu may yoon wi nañu toog ba sëriñ bi génn